alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi sayidi almursalin wa ala alihi wa asxaabihi dhawi ridwani wattamkin wa radiya allahu an alsaxaabati ajmain wa man ittabiahum bi hudaahum ila yawmi ddin mbokk yi gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dikkaat ak yéen rek ci seen émission shukran ci beneen jataay suñu jataayu tey nag ñu jagleel ko dépensé te yàlla rek a tax mbokk yi nag jamono ji ñuy dund soxla dimbalante te yàlla rek a tax yàlla wax na ci alquran ne yaa ayyuha alladina amanu anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yatiya yawmun la bayun fii wala qullatun wala shafaatun walkaafiruuna humu zaalimuun ci suratul baqara yàlla nee na ay yéen ñi gëm yàlla dañuy wax ne nag su ko yàlla waxee ñim gën a soxla rek la wax ak nee na na ngeen dépensé ci li ma leen wërsëgal lu jiitu bés di ñëw boo xam ne jënd ak jaay du fa am euh, bés booba mooy bés boo xam ne jox leen diw nàngam ngir mu ba amul ndax dañuy wax ne àdduna yebal leen diw ndax ñu rus ko am na fi nañ ko jox nangam ndax ñu bàyyi ko am na fi nañ ko sot sotoo nangu ko ci moom am na fi waaye àggul àllaaxira moo tax yàlla ne nañ dépensé ci liñ balaa bis a ñëw boo xam ne ah buñ fa àggee mbokk yi ku fa gëmul woon yàlla am nga soxla euh, yàlla delloo xat ci alquran ne masalu lladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali xabbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin miatu habbatin wallahu yudaifu liman yashaau wallahu waasiun alim yàlla nee na misaalum ñi nga xam ne dañuy jël li ma leen jox man yàlla ci seen wërsëg di ko dépensé ci sama yoon wi dépensé ci yoonu yàlla nag dafa bari ay façon dépensé ci yoonu yàlla mën na nekk nga fekk kuy jàngale alxuraan nga dimbale ko te yàlla rekk tax mën nga fekk ku soxla nga dimbale ko te yàlla rekk tax man nga fekk ko aajo woo mbaa ko feebar nga xettali ko te yàlla rekk a tax yàlla nee na loola nga ko xettale dafa mel ni benn pepp dugub boo jël dem ba ca àll ba nga suul ko fa wàcc ko fa wan ko gannaaw man yàlla ma wuutu la ca wàcce fa ndox taw ci kawam saxal ko ba mu ñor gub wu nekk ma génn ca téeméeri dugub wala lu ko ëpp sax faf wala yàlla ful ko ba fa ko soob ndax yàlla kat ku yaatu ci ni muy joxe la waaye ko xam li ngeen di joxe lim lim leen jox bi ngeen bi ngeen koy joxe fi ngeen ko def yàlla nee na nag alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ñi nga xam ne dañuy jël li ma leen jox man yàlla di ko def ci fi neex yàlla summa laa yutbicuuna maa anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum inda rabbihim laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun yàlla nee na ñi nga xam ne dañoo jël li ma leen jox dépensé ko fi ma neex te duñ ca tofal suñ koy joxee am kañu walla am damu bi maanaa di dimbalee nit ki ba noppi di ko wan ne da nga ñàkk jom walla da nga feñàkk loolu baaxul parce que soo ko defee li nga defoon amuloo ca dara yàlla nee na ku defut loolu ci li nga joxe sa pay man yàlla maa ko amee te bul tiit dara ci li nga dépensé ne bu jeexee leneen du ñëw déedéet bu ko def te yàlla nee na yowmal qiyaam boo ñëwee bul bokk ci ñi nga xam ne doo bokk ci ñi nga xam ne dañ fay am njàqare moo tax yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala wax ci xadisul qudsi ne yabna aadama anfiq unfiq alayka yow doom aadama bi dépensé ñu dépensé la parce que ki lay jox moo la ëppale moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis ne wa ma fataxa rajulun baaba atiyatin yuridu biha yuridu biha sillata illa zaada allahu biha aksara ma yunfiqu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul kenn koo xam ne ubbi na buntu joxe génn di joxe bëgg ca la ngay joxe lu yaatu jokk bokk bëgg nga ci lu yaatal sa xame lu dul ne man yàlla danaa la dolli lu ëpp la nga dépensé moo tax yonent bi wax ci xaddis ne maa min yawmin yusbixu yusbixu al ibaadu fiihi illaa malakaani yanzilaani fa yaquulu ahaduhuma allahuma aati munfiqan xalafan wa yaqulu l aaxar allahuma aati mumsikan talafan yal nañ ci yàlla musal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jant bi du fenk mukk lu dul ne bu ñu xëyee dana am ñaari jaami yàlla yoo xam ne mooy ay malaayika lañ kenn ku nekk ci ñoom ñaar dana taxaw ñaan te ñaanu malaayika kenn du ko delloo kenn ki lu muy ñaan mooy day ñaan ne yàlla ki génne dépensé te sa te sa yoon wi rek a tax wala ki génn dépensé te sa jëmm ji rek a tax yàlla na nga ko wuutal lu ëpp li mu dépensé keneen ka ca des dana ni yàlla ki nga xam ne danga ko jox wërsëg ba noppi mu nay tëdd ci yàlla na nga yàq wërsëg woo mu yor yàlla nañ ci yàlla musal te mbokk yi nag àdduna bu ñu ko seetee joxe wala wërsëg mu ngi nekk ci am-am wolof bañ na ko ba dafa tudd baat bi sax daf ne am-am kon dangay joxe ñu jox la moo tax. te joxe sa alal ba noppi nag tofal ca wax ju bon baaxul parce que dina rékki li nga def ndax ki nga jox ba noppi wan ko nekko ko da nga ñàkk jom wala da nga feñaat mënoon ngaa wuti parce que dese nga doole defatoo te yàlla tax moo tax yàlla wax ci alquran indexé kooku noonu ne ko qawlun maarufun wa maxfiratun xayrun min sadaqatin yatbawaa adan wallahu ganiyun xalim euh, yàlla wax na ci alquran ne wax ju teey nga wax ko nit ki donte joxuloo ko mu ëpp doole foofu sarax boo xam ne boroom daf ko joxe ba noppi tofal ca ak ñaax parce que yàlla ku oomal la ndax moo la jox li ngay joxe te yàlla ku lewet la parce que mën na laa wuutu fa nga fa nga féete kii lay laaj euh, ñu jëlee ci abdullahi ibnu umar radiallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett a ngi nii nee na yàlla du leen xool yowmal xiyaam ñu ne ko mooy ñan mu ne aqul li walidayhi wa mudminul xamr wal man naanu bi ma ata wala bi ma utiya mu ne ñett ngi nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla du leen xool yowmal xiyaam ñu ne ko ñan la mu ne ku dëng ay way waajuram ak koo xam ne dafa dappati ko naan sàngara ak koo xam ne fu mu toll mi ngi fëgg dënnam ci li ko yàlla may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ñu ci joxe ne ñu ittaqu naara walaw bi walaw bi tamrin yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na nangeen daw safara doonte benn tàndarma ngeen di joxe sax mu fegal leen ko kon joxe baax na mbokk yi euh, yaa ayyuha alladina amanu nag su ko yàlla waxee rek mbokk yi ci jullit ñi walla ci jaam ñi ñim gën a soxla rek la wax ak ba tey moo tax yàlla wax ci alquran yaa ayyuha alladina amanu laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adaa kalladi yunfiqu maalahu riyaa annaas wala yuminu billahi wal yawmi al axir fa masaluhu ka masali safwanin alayhi turabun fa asaabahu waabilun fa tarakahu saldan laa yaqdiruna ala cheyin mimma kasabu wallahu laa yahdi alqawma alkafirin euh, mbokk yi yàlla dafa wax ci alquran ne yéen ñi gëm yàlla na ngeen góorgóorlu ba sarax yi ngeen di joxe bu leen ci toftal damu bu leen ci toftal wax ju ñaaw su ngeen ko defee day mel ni kii jël alalam di ko def ci ngistal dangay seet ne télé yi tey bu ñu ubbi woon waykati àddina yi dem fa di way wala sax boog waxkati àddina yi dem fa di wax dangay gis ne la ñu fay jëlee ka doon wax ci diine sax munu ko faa jëlee mu ne su boobaa seen dépensement yooyu ñuy def ca ñooña dafa mel ni nga jël balanca bu nooy balanca buñ ko waxee mooy suuf su nooy nga jël ko teg ko ci kaw aw xeer woo xam ne am waame dafay jaar su tawee ba noppi bu sébatee boo ñëwee suuf soo sa nga fa tegoon dootu ko fa fekk liñ defoon lépp yàlla da koy màbb te yàlla kat am na fayda ju doy ni kuy réer réerlu yàlla du la gindi mukk dalay bàyyi ci sa réer ga te mbokk yi yàlla waxoon na ci alquran nag ne lan tanaalul birra xataa tunfiquuna mimma tuhibbun du ngeen am lu baax mukk lu dul ne li ngeen gën a bëgg da ngeen ko yëkkati dépensé ko te yàlla rek a tax kon ku bëgg li nga li nga am di yokk joxeel ci li nga gën a bëgg yàlla wuutal la ko ndax yàlla kat wax na ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu ndax wa huwa xayru lu ngeen dépensé man yàlla mu wutal leen lu ko gën ndax maa leen dàq dépensé te mbokk yi yàlla wax na ci alquran ne asheytaanu yaidukumul faqra mooy lan seytaane daf ñuy gaaral toujours ak ñàkk du rek li nga am mu ne la garde ko day tax nga sakkan le déedéet seytaane daf lay ragalloo ci ne boo joxee li nga yor dana jeex te nag wolof mbokk yi day wax ne nay benn la tabe benn la gis nga ki nay bu ko yàlla joxoon àddinaa ak li ci biiram bu ne suba bu ma xëyee dinaa dépenser ci guddi gi la seytaane de ëf xol bi ne ko boo joxee li nga yor jeex moo tax kenn génneetul azak waaye nga gis ne bu ne suba du joxe ci guddi gi la ko xol bi di yedd ak xel mi ne ko boo joxewul nangam boo joxewul nangam boo joxewul bu xëyee buy joxe sax ndeysaan da gis ne li muy joxe teyu ko loolooy misaalam ku tabe kon mbokk yi nañu wattandi li ñu seytaane di digal parce que seytaane du dugal kenn lu ko jariñ te yàlla wayta wattandiku woon nañu ko nag nañu joxe ci liñ am suñ bëggee liñ yor yokk te mbokk yi joxe kat mën naa tax nit gudd fan dama dégg ci sama benn baay bu baax alxaaji Ousmane Ñang radiallahu anhu mu wax ne baayam nee na ndaw lu am wërsëg day jaaxaan jël ko teg ko ca dënn ba ku dikk tibb ca wërsëgoo ba ko fa dem waaye nee na bu la bëgg jàppee ba nga defee nu ca wërsëgoo su nit ñi dikkee mënuñoo jot ca wërsëg wa dañ lay coppati yóbbu suuli jël wërsëg wa séddoo sa gannaaw kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla nañu yàlla xiir ci joxe suñu sarax yi ñuy def ci weeru koor wi yàlla bu mu niil wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu